Euh, donc, nous allons parler des autres euh, Mimi Touré. Sinon, on va di kóol noonu dem jëli de jëli iPad quoi ok so on l'a waroon def sax ni mais bon ouais. donc nous allons parler des des euh, des ennemis de Macky Sall difficilement dénichables autour de Macky Sall ok Bou Makhtar Amadou Kan. donc le temps Mboki yi ma may il est avec quelques même les plus tirés du monde. Ils sont capables de tout. vous les avez, vous avez identifiés, ces écoles Je les Qui sont-ils Comme là, euh, je ne dirais pas. Ils se méfient de moi. moi, j'ai des ennemis. Vous le savez très bien. J'ai des ennemis que tout le monde connaît autour de moi. Ennemis ou adversaires, c'est différent. Hein? Vous avez des ennemis ou bien des adversaires Non, des ennemis, Je parle français. Des adversaires, c'est sur le plan politique, nous voulons la même chose, on fait la concurrence, etc. Je vous dis, j'ai des ennemis autour de Macky Sall. Je ne parle pas de Macky Sall. ce sont eux qui tirent les ficelles. Comment Ce sont vos ennemis supposés ou réels qui tirent les ficelles. Ils tirent les ficelles tous ceux qui ont lancé la traque devient mal acquis. C'est qui ça C'est pas Macky Sall qui a commencé ça. Vous êtes en train de disculper. Vous savez, Macky Sall, il est passé. ok Lola laa de d'abord. d'abord. ko parce que dafay dafay am solo ci waxtaan bi mooy euh, c'est tante entretien, de Tu as un de de bi. positive qu'une certaine opposition essaye d'endiguer. Je sais que vous allez nous poser des questions, mais je voudrais anticiper sur euh, une question qui agit de l'actualité et qui a été évoquée d'ailleurs hier et c'est ainsi par une certaine opposition concernant le dossier d'une certaine dame qui s'appelle Adissar. À cette occasion, je voudrais dire euh, que ce n'est pas Bernard Bokoyakar qui tient le carnet de rendez-vous de suite Beauty Salon, ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Ce n'est pas nous. Donc nous n'avons absolument rien à voir avec une affaire qui est strictement privée. OK. Pourquoi, mais... va euh, Mimi Touré nee devant dafa am ok li wax ji dafa am solo quoi déggu ok li mu wax pas aussi prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils ne sont. faut pas prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils le sont. Il ne hein? faut pas prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils le sont mais j'ai l'impression que Mimi Touré <laughs> euh, elle prend les Sénégalais pour 10 000 fois moins intelligents un milliard de fois moins intelligents qu'ils le sont à cause de son comportement ci jamono ji ñu ni mi mi Touré bi mo doon wax démb donc thème bi mu jowaat ci thème bi hein euh man je voulais dire dit ah dama koy répéter situation politique bi man j'étais un sympathisant Thierno Alassane Sall je dis pas que rek parti politique am la laa il y a une différence man je suis un activiste peuple bi la fi nekkal te defe naa ki njëkk def ay vidéos pour continuer xex bi ñu xex continuer ko ma pas am idée de faire ay vidéo pour balancer ko avant live yëpp di am après le Facebook créé live donc dañ ci mësa nek nekk euh parce que loolu lañu que nato right depuis BMJ 44 depuis rapajo et tout right donc engagement bi jamais faire jamais au plus grand jamais on a fait de l'art pour l'art ok on n'a jamais fait de l'art pour l'art donc il faut ñu def rappel bo maintenant ñun ñay wax ak yéen ba Maïlen, en 2000, élection ah, nous avons vu ces gens là comme ils ay nous avons vu Askan nous avons tellement d'opportunistes Yo, xam dañu gis ni Ousmane Sonko dafa am ay yu ko récupérer ñu bëgg récupérer xalé yoy ñu faire semblant ku li ko Macky defal mais Ousmane Sonko defalu ko ko <laughs> du dëgg donc bu dewe tay parce dina ñew la moko ko booleeg Macky Sall parce que man je man lu may jàpp ci ben affaire damay mën sa samay enquête quoi mu ma ni fi dugg fi fofu la right ou pas wala nan la ci duggé maintenant d'abord ñu def benn kii Mimi Touré la moo ko dal mooy depuis le début ah yow yaa ngi liggéey ak Macky Sall mais euh, pourquoi affaire l'assemblée nationale bi mu nek problème de war dem parce que c'était sa dernière carte diilam comme ni ñu koy waxee ci langage mbedd je mo calaté il fallait mu dem Mimi Touré que, nek ci bureau d'après information yi ma jox di jëw Macky Sall di préparer un sale coup contre Macky mooy après je dis bien moment boo xam jox nañ ko pour mu gérer campagne ndekete mom son plan mo don pour mu nek président assemblée nationale lolou le bëggone quoi mu gérer assemblée bi jaay euh, bara Moussa Sow ah delloo ziar frère. xam nga euh, donc mom bu nekkoon président ou assemblée bi xaalis bu taqul la fa don lawé day am genre caisse noire whatever ak salaire président bi ça allait lui faire plus khalis mu jot a ok parce que moi, je on ne sait pas je ne sais pas bon loolu je ne 100%, pas 100%. mais je me dis que c'est ma, ma imagination ok mais l'essentiel c'est mu ngi doon ut alal ok ok mon ngi out alal ci mbir pour lan dafa daan préparer pour ñeu gérer assemblée bi amine gérer euh, euh, nek candidats candidat présidentiel loolu daan préparer maintenant sel ngeen depuis le début la ngay liggéey Macky Sall Macky Sall waxagul ci yow ngay genn nan non Macky Sall amul droit def 3e mandat mais xam Macky Sall mo ne gëna intelligent à chaque fois je vous le dis ok légui Macky Sall baye ko mu déroulé ba dernière minute gaay yi paqueté ko lool moko metti c'est la même Mimi Touré mi don saga Ousmane Sonko ñak jom tay mom mo dem delu feulé ok lay balé mu delu ci Ousmane Sonko

mooy ndekete autour de Macky Sall am na yeneen Mimi Touré xam lu ñuy xaar gars yi commencé nañu dama leen di cax ñi koy def ki koy def surtout te mu nekk ku am doole ci réew mi dama koy cax ko ok euh, commencé ngeen lâché lâché sa bulldog yi nekk France yi lay jàppale am na ku ci def sorti Dakar matin koo xaal pulaar commune xaal pulaar ok pour mu comme moom mu xam xam ni ci bulldog yi ok ci bulldog yi lâché commencé na lâché bulldog yi ci suuf la ñuy jaare ay ñoom benn ñoom benn jeloun affaire yooyu ñu nekk France naan ay F24 di soob mais proche Macky Sall moo nekk ci ginnaaw comme ñooñu nga xam ne ñoo doon ñoo doon nangu Atepa di di leen financé ok oh yeah backstabbing all over the place Macky Sall loolu lay jànkoonteel tey yow tey Euh, gis nga waa impôt domaine parce que moment bi mënu ma joxe livrer lépp quoi parce que dama bëgg ñoom ñu arrière quoi ñu arrière kese gis nga waa impôt et domaine euh, ñu fa jaar gars yi nekk na ay nante nag xam ne fi may waxee ñu fa jaar impôt et domaine ngeen am yenn alal yi xoolal waxu leen sénégalais yi comment vous vous êtes enrichi de jaaram Aminata Sall Sall a famille mhm. ok Québec, Québec, Québec. pion ou proche Macky Sall Macky pion quoi L'homme est une stratégie Mimi a compris Je tax tey sortie def mon parce que Mimi Touré politicienne elle a compris Les gens bëgg affaire bi jóge ci moom quoi il ne dina Tu ci wa APR amna ñu muy xam suivre quoi créer ben pôle coalition c'est ce que je Touré wax vous savez c'est quoi la stratégie parce que xam il faut anticiper en fait Mimitouré, elle essaie elle essaie d'anticiper qui est. Ok, ok anticiper qui. Macky Sall bu newee dafay parce que nous ñoo ko ñun ñoo troisième mandat pas troisième mandat mais mu mu quatre candidats. candidat vous ko bëggul sa affaire Vous avez F24 non sincèrement vous voulez F24 bu vous yi gagné kenn si bu gagné euh, euh, lan ngeen di wax lan ngeen di wax lan ngeen di wax euh, comment il s'appelle encore euh, maître Seye Clédor Sène yéen loo Y'en a marre bi collaborer avec des ONG impérialistes Hein? ay ay Queen Bees mais dañu laaj sen wall mustapha si am déjà 12 députés yu door ay jigen ñu gëna am doole ci réew hein lol ngeen non il faut Macky Sall def xool ki dima ma laaj ndax 3e mandat nga bëgg non bëgguma 3e mandat parce que yeen bo leen comprendre loolu doo leen wax waxi 3e mandat le mot 3e mandat lo xam ne bi ñoo leen ko imposé lépp dañ ko importer ngeen di wax ay 3 affaire mandat moi je pas de réélection de Macky Sall loolu je veux que Macky Sall soit réélu pour qu'il soit réélu 5 ans yi di ñew le temps ñu mëna identifier kan moy kan parce que instant bi dafa depuis le début ñun dañu ñëw hein, ñëpp ñi nga xam ils sont ennemis du peuple mais ben instant mais ñan ñoo doon opposition bi jamonoy jamonoy jamonoy kii jamonoy euh, Abdou Diouf ñan ñoo doon opposition bi après fan la hein, ah ñan ñoo nekk pouvoir bi bi bi bi Abdoulaye Wade jëlee ñan ñoo doon opposition bi tey opposition tout le temps ñun on oublie de vérifier. dox check parce dañ nan ok pouvoir bi pouvoir mom la xex mais ñi ñam ñi and ak ñun ci suñu wet duñu xol kan moy kan pourquoi nous continuons à commettre à commettre les mêmes erreurs quoi tout le temps c'est les mêmes erreurs pour gain, bi nek fi suñu wet la diñu wax yu neexi mais mom moy non, bi mom moy non yi gëna a dangereux yalla wax nañ ko ci Alxuraan chaque jour ma wax almalaas yàlla buy wax almalaas di ci insister loolu lañu bëgg jàngal loolu la ñuy yàlla bëgg jàngal xool leen ñoom xaamaan yàlla nee na yonent yàlla saalix les notables notable benn nit la ah? instant bi dafa jaxasoo xamuñu kan mooy kan ok koo fi waxal mooy la non Macky Sall liggéey na de mais gars yoo xam ne boo leen waxee affaire droit xamuñu si ñaari salaamaaleykum riirandoo kese da ngay yow dugg web, ñu informel nga pare fële tu prends même pas le temps de faire tes recherches jëlal sa temps nga woo ay constitutionnaliste nga woo des experts en droit là, leen lan la ñu ci affaire bi qu'est-ce qu'ils vont te dire ils vont te dire oui le gars a droit à un troisième mandat selon la constitution man dama def sama homework ku ci bëgg dama def sa homework une loi ne rétroagit pas

mais ñu donc le sept ans il lol loolu moo tax mi jazz nan de ngeen France je comprends français vous parlez français je parle français moo Ousmane Sonko nangu ne Macky Sall day am droit en troisième mandat ah, ah, ah bon je parle par rapport au contexte je vais dire troisième whatever mandat whatever mais xam ngeen fi may xalaté ok xam nga ok légalement xoolal gars légalement dafa valable légalement bi ñu leen ci référendum ñu la la problème am ku c'est ça la réalité mais les gens ne prennent pas le temps me faire ay recherche amu ah, te le temps laaj ñi émotion rek di bëgg ah. mais arrêtez ça wala lool parenthèse la won nañu ci les crocodiles euh, euh, traîtres là autour de Macky ok soyez pas surpris bu Macky Sall accepter ñun li ñu bëgg mooy mu représenté wu ñun loolu la ñu bëgg quoi man personnellement dama bëgg Macky Sall présenté wu mu gérer 5 ans yi di ñëw après mu dem loolu mooy jàmm Sénégal ane ci pétrole la ñu jëm ci pétrole lañ jëm dossier yi ci loxom la nek depuis le début té il a souffert man xamna on le voit c'est évident dafa souffrir ci affaire Sonko bi ni ba paré yéen man lima ma jaaxal mooy kuñ ci wax ci yéen ngeen non Macky Sall liguey wax deug Yalla defar na réew mi réew mi changé mais donc c'est clair c'est clair alors. du comme que liguey na yéen ñëpp vous reconnaissez que mais xam la moy sen problème yéen yéen ku nek bopam lay xalat quoi man est-ce que man ah sama affaire baxna ci réew mi moi c'est un problème sénégalais esprit patriotisme zéro quoi ku nek sa bop ngay xalat moy li nga xamni ni ko bok loolu buñ ci liggéey tant que gisso ci sa bop, yow da nga liggéeyul nga États-Unis nga am ben business nga yo ko Sénégal doxul Macky Sall liggéeyul ok yow nga ñëw parce que j'en ai vu j'en ai vu des gens yo xamé mais gratuitement la kay attaquer mais da ngay wax ñom combat mais après tu réalises que mais ces gens là parce qu'ils ont un business bu doxul gisuñu sen bop ñu ne way lepp il faut me changer pour qu'on leur donne une nouvelle chance benen bi moy dañu tok ñu gis benn way buñu ñu koñ gars bi commence dawal Mercedes mais c'est normal c'est normal bu commencé liguey fële salaire am day yokk mais mën na Mercedes légui nak nga non non gars bi warul am Mercedes non warul am kër parce que ñoo fi galère ndo c'est ça votre problème mais xool leen li arrangé Sénégal man mënu ma comprendre déjà Moodu Moodu bu nekk si diaspora bi quoi nga nekk si diaspora bi nga war a liggéey ah nga am pour liggéey quoi ñëw yu ubbi la yu yaa tane waa Sénégal quoi mais yéen waa diaspora bi mais yéen yéen a gën a sonnal nit ñi quoi yéen a fi gën a nekk des opportunistes waa diaspora bi yéen a gën a grignoter as tuut bi nekk Sénégal alors que pauvreté bi Sénégal la nekk. yéen ngeen nekk fii diaspora ngeen war a mais chaque fois yéen ngi béjjën di xool ni ngeen Sénégal ah? wala ñi nga xam dañoo raté nekk si diaspora tekki wuñu tous toog seen oto fii ci 116 bi ah toog di def ay live parce que yàgg nañ nekk ay truand ñu jàpp def prison mënatuñu neex la si dëkk bi ñoom ñooy Sénégal di leen dégg mais kañ la waa diaspora Sénégal kañ kañ. mais da ngeen daan ñëw bi bi muy neex ci yéen waa diaspora bi muy neex ah, xam def. ñëw Sénégal faalewu leen Abdou Diouf mooy président faalewu leen Abdoulaye Wade mooy président xam nga looy daan def ah ngeen sol seen i ensemble jin yooyu tàntangaay seen cuir yi tàntangaay takk seen chaîne or jóge itali nangu gelu ñëpp ñëpp ngeen nangu seen gel ku fa am gel bu matérialiste ngeen nangu ko gaare ay oto kii fekk yéen ñu bëri ci yéen mooy loolu xam nañ looy nekke woon ci kaw mais bi diaspora bi commencé kalaate ngeen commencé mais attendez boobu ngeen commencé intéressé wu à la politique ngeen commencé intéressé parce que da ngeen a bëgg ñibbi ngeen bëgg ay garantie bëgg ñibbi les les benn la ñi nekk xoolal hypocrite yi nekk fële France ah ah ñi nekk France F24 bi nekk France xoolal majorité bi dañoo kalaat dem leen xool lan la ñuy dund ñoom ñëpp majorité bi yoruñu ñaari salaamaaleykum ay SNF retraité la ñu ñu bëri ay SNF retraité la ñu yoruñu dara li ñu bëggoon bokk yow amuñu ko ñun la nga amu ci politique bi def à la Souleymane Jules parce que Souleymane Jules après ñibbi na bon moom sax bi mu ñëwee États-Unis fii bon moom il n'était pas vraiment journaliste la woon bu nekkoon di coogi nekk mais comme nekkul comme Moodu yi comme yéen ko xam nga parce que yéen ah ah <laughs> noo trondoo tooñu ma de non yow moom gërëyee nga yow liggéey kan nga <laughs> boo ok donc c'est ça gars yu bëri ñu bëri ah dañoo kalaatale gars yi ñu nekk Sénégal sud comprendre leen loolu dafa dafa dëgër ci ñoom ñu leen di jéem a nax gis nga ñoom bu keneen faloo fi ah keneen ah, ñoom après ñoom ñooy ñëw bien dool duñ leen jël yéen ñoom la ñuy jël parce que ñu ñibbi ñoom ñëpp ñu ne waa parce que ci combat bi de buñ leen joxul nag buñ leen joxul dara ñu nekkaat des ennemis de ki ngeen fal dañu nekkaat des ennemis de ki ngeen donc affaire bi dafay ko le problème va rester entier mooy li may patriotisme zéro gars yi xeexuñu pour Sénégal seen bopp la ñuy xeexal affaire bopp sa bopp la quoi da ñëw parfois ngay xeex sax gars yi la ñuy wax ba gars bi dañ ko jox xaalis de da ñëw sax benn instant mën nga am ki nga bokkal sa naal mais jël sa wàll gars jël sa wàll wala nit ñëw ngeen bokk de ah mu ne la mais live lay def ay live di rey sa bopp ci Sénégal bi bu rey sa bopp ci réew mi ñii jaruñu ko dañ la koy wax le nga ne non démb démb gan kii woo na ma de benn kilifa nga ne ko démb Macky Sall woo na ko mu ne eh ah bon ah, affaire bi dem moo ngi bëgg automatiquement mais dangay gis ku la jege moo koy def ko c'est ça la réalité Sénégal donc ma tax may leen instant bi ah xool leen pëndi dafa jaxasoo xamuñu kan mooy kan munu jël risque gis ngeen li am ci assemblée bi affaire yeewi askan bi gis ngeen li fa am lësta xoolal benn mbir rek xoolal États-Unis euh, euh, Ami Ndiaye kuko doron tay fi amerique Amérique par exemple wala ay France nga dor jigen ci assemblée mais c'est fini pour toi c'est fini waxuma la dugg djel bi kese mais ngay dor di wex mais dama djel image bi ah ko won amna ben jour policier la ko won ben policier ma demoon Colomoso ñuy waxtaan noonu ma koy ñuy wax waxi Sénégal fek juste affaire Moustapha mais il n'en revenait pas un policier Columbus Ohio il n'en revenait pas non mais attends qu'est-ce que gambi bi dafa keud jigen bi il n'en revenait pas te ñun nee dëkk jullit lañu anyway loolu pour ngeen comprendre pourquoi gain ah soyons patients soyons patients Macky Sall na def beneen mandat ci cinq ans yi ñu mën a identifier kan mooy kan ñu éliminer les brebis galeuses bu lolu di ngeen tégaat dëkk bi ci ay bomb té bomb bi ma gis ni mësul am bomb bonee ni ci histoire du Sénégal ah ok comme le ma docteur li di collectif Nous africains dafa mel xamul loolu euh euh dama question nan la quoi yi ay pirate quoi ay pirate waxuma la ay kid ay businessman pirate ah, xam nga sax temps colonisation sax avant colonisation après révolution industrielle sax organiser sont les gouvernements ñu envoyé des missions et des explorations mais avant il y mais ay bandi salte ñoy am am sen bateau nga am nga nga nga des bandits mais 400 ans nga dundaloo Afrique 400 ans d'esclavage. 400 ans Tout dafa mën nek nan la mais parce que africain bi mo doon jay africain bi té xam la africain ah lu tax ñuy très très souffrance yi bëri si ñun ñun africain te loolu la ñu war a teggi mooy parce que yàlla daf leen jox lépp jox leen mathématiques yi jox leen ngeen ñëw africain ñun ah ay pyramides yoo xam ni ba tey mystère bi xamuñu lan la jox ñu ay algèbre jox ñu lépp ñun l'homme noir au lieu ñu jaamu yàlla gain ah ñu dem ba mu yàgg ñu commencé ko bokkaale commencé di di di di indi ay ay ah, euh, les trolls trinité yooyu la mooy gars yi ay ay Osiris ak Isis ak mooy li kémit yi nga xam ne tey dañoo ànd ak Sonko li ñu nekk bëgg mu ñëwaat tey li indi suñu musiba ah ñoom moom la ñu bëgg tey ñu mu ñëwaat mooy kémit yooyu am doole ci Ousmane Sonko ñoom booy Ousseynou Seck ak Akhenaton ah te loolu mooy problème mu Afrique loolu moo ñu indil cadeel ok mooy bokkaale bi ñu bokk gis ngeen histoire bani Israël saa ñu yàlla won leen ay miracle ñu bokkaale punition ñoom ndabu xar nasar ñëw na jaar nañ ku ñëw conquérir leen ku ñëw exterminer leen jullit yi bañ ko defee ah la yàlla yónni Gengis Khan Gengis xan ci jumaa bi la toog ah ku gàllu ci ki kii dafa toog mu ne man punition la bu jóge ci seen yàlla carrément la ko wax jullit yi mooy abbasid kilaafa bi ci biir masjid bi la dugg ne man punition laa seen yàlla daf leen jox ngeen trahir ko loolu moo ñu dal te loolu lañu ñu continuer tey mooy bopp sa bopp ak nit ñi nekk ay traître tey nan ngay àndeeg nit ah yow nga ni tey yow par exemple premier ministre nga ay cax nag cax yi parce que étape par étape laay ñëwee nga ni yow premier ministre nga ko exemple ngay liggéey ak benn gain mais jox nañ la tous les pouvoirs du monde pour nga réussir quoi mais nga ni non non man gain kii nekk président place am bi laa war a jël quoi ah, bu fekkone dimbali réew mi moo la tax jox opportunité nga liggéey ah nga nga wara a liggéey quoi mais pourquoi ngay non Macky Sall il faut mu jóge fi, man ma remplacer ko quoi mais bu nekkone Sénégal ak fiñu tollu ci ay chantier fu tollu ci ay problème ah mais waro tal loolu normalement bu nekkone yow mais deug ak bëgg Sénégal mo la tax mais non non da nga bok ci ñi nga xam sen avidité pour pouvoir dafa paroxyste yow da nga dem ba gumba te xam la moo garaaw ñu ay milliardaires la ñu nek quoi. gars yi gis boo leen bëggee dimbali Macky Sall ngeen bëgg dimbali Sénégal hein pour que mu ñu ci hein ah. mais xol képp ku nek autour de Macky Sall suba dama leen di avertir suba xol leen sen discours yi ku ci génn nga ni da ngay xeex troisième mandat bi xawma euh, réélection wam bii ngay da koy xeex xam leen ni moy ñi nga xam ni tay pourquoi may di wax li parce que dafa am ño xamni gaay dañu gas ñoom ñuy sul ñoy saboter ci souf ñoy saboter ñongi ak Macky Sall mais ñongi saboter mënuma dugg ci détail on est en public ñongi saboter ñom ñongi saboter ñun dañu connecter dañu connecter ba xam ba xam gaay yi gisa affaire gisa yenn affaire yi ngeen di defa ah. bés bo leen dof dof lo amul premier ministre amul dara damay tiax nak boo dof dof loo ba dënd fi affaire traite naa fi kalaatel sa benn deal boo xam ne ah bu ko Sénégal yëg ko dama ni dama leen bu baax bés boo dof dof loo ba indi fi problème naan da ngay xeex Macky Sall pour mu réaction naan noo war représenté wa amul premier ministre amul dara laa wax déglu leen li may kalaatel sa diir xam nga kan may wax ak yow kuy wax ak yow. sëtu Eliman Boubacar kan mooy wax ak yow ok kan nag laa kan xamal bu baax cax la nag cax la kan mooy wax ak yow sëtam sow boo dof dofloo parce que am na yoo xam ne dañ koy garder quoi mais bu nekkee intérêt réew mi daf ci kii problème réew mi ay nit nar a dee encore am ah. non xoolal ñun dañu kalaatel ko ñun dañu ñoo xam ne dañu xam ay affaire en privé après di ko wax en public mais am na foo xam bu fa tollee

képp ku fi ñëw nga jege Macky Sall wala gain boobu noonu di jal ay xaalis ci suuf di gérer seen affaire yooyu ngeen di defar dinaa fi kalaateel ay affaire naa fi kalaateel ay affaire yoo xam ne sénégalais xamuñu ko mais man xam naa ko ok donc sénégalais xamuñu ko mais man xam naa ko donc lan mooy seen intérêt yéen ngeen continuer ngeen xool Sénégal ngeen xool dëgg ngeen xool Sénégal ngeen xool dëgg ok Je bu ba ngeen Senegal, ngeen xol li arranger ñun wax ok si vous ki bobu sénégalais soyons patients soyons juste patients man j'aimerais voir, après 2015, après deux mille euh, euh, euh, maanaam de de qui bi di après les cinq ans yi di après les élections deux mille vingt quatre plutôt hmm? yenn nit yu bax yi nga xam yéen a ci biir Sénégal ñu xam leen ngeen génn ngeen présenté wu pour ñu xam leen ngeen donner une chance à ce pays ok benn affaire dafa am Thierno Alsan Sall dafa sacrifier ay mbir ministère qui la sacrifier quoi est euh, ministériel mais portefeuille le sacrifié pour gomme quoi mais définitivement, erreur bii erreur la def on a rien à lui reprocher wax de man personnellement lola, laa le reproche. reprocher L'erreur, parce que je comprends aussi il a des crocodiles affamés autour de lui Comment le ni Al-Sansal, il a des crocodiles affamés autour de lui ñi nga mais dañu dem di jaale ji di ji di jaay seytaane di dem di seeti waa Walf affaire seytaane la Mamadou Aw xaw ma lan affaire seytaane kan moo la dem loo Walf ak Walf li ñu yàq ci réew mi ah est-ce que loolu Thierno Alassane Sall moo ko wax est-ce que bi ngeen di dem donc yéen tout le temps comme Macky Sall comme Thierno Alassane Sall comme Ablaye Wade yéen tout le temps yéen yéenay problème bi yéen vous les opportunistes yi gravité autour des leaders là parce que ñoom bu ñu waxul ñu ne non non waa ji dictateur la yéen gis ngeen Binta Abdoulaye gis ngeen xeexal Sénégal moi je me débarrasse des brebis galeuses lan la que yi non je dictateur nga quoi non I don't care ku ma problème ngay nekk suba mais je te dégage yow gars wax mais leader ñëpp noonu la ñu def ay affaire de des histoires de démocratie là. tant que ne leen ko un leader da ngay des décisions fermes parce que c'est un intérêt kese moo leen tax C'est un intérêt personnel Ablaye Wad, pourquoi il était obligé encore une fois je leen koy waxaat ah may ko reproché lu nek mais jéemoon na bëggoon na liggéey aussi quoi dafa am nit yo xam naturellement dañoo tàlli Ablaye Wade dafa tali quoi parce que man la gis après loolu la jang loolu lañ loolu lañ ma won on me l'a démontré moy nit ke lo xamni ne dafa tali day maye quoi day maye am na ñu mel non naturellement ok bene sa dañu def sax ba maye waree ba ok c'était une erreur hein, parce que dafa war équilibré da ngay créer ay milliardaires mais Sénégal dañu dem jël de bi leen may ñu nous ay lañu won mënu won millions pour juste parce que rêve la ci ne dina réalité Wad, gis ni leen avec quelques les plus curieux du monde. Ah Ils sont capables de tout. Et vous les avez, identifiés, ces Je les connais. Qui sont-ils Comme là, euh, je ne les pas. Ils se méfieraient de moi. Je, moi, j'ai des ennemis. vous le savez très bien. J'ai des ennemis que tout le monde connaît autour de moi. Ennemis ou adversaires, c'est différent. Hein vous avez des ennemis ou bien des adversaires Non, des ennemis, c'est pas le français. Des adversaires, c'est sur le plan politique. Nous voulons la même chose on fait la concurrence, etc. Je vous dis, j'ai des ennemis autour de Macky Sall. Je ne parle pas de Macky Sall. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Comment Ce sont vos ennemis supposés au réel qui tirent les ficelles. Ils tirent les ficelles. Tous ceux qui ont lancé la traque des biens mal acquis. C'est qui ça C'est pas Macky Sall. Vous voyez, tous ceux qui ont lancé, la traque des biens mal acquis, c'est qui ça C'est pas Macky Sall. L'olor donc li ñu intéressé moi les gens qui gravitent autour de nos leaders de nos présidents quoi Abdoulaye Wad, loolu le comprendre à un moment même mu non mais attendez ni dañ may yàqal mu jël lépp jox ko Karim Wade mais parce que Karim Wade doomam le du ko mës faut trahir foofu lañ ñu Nous ñun dans le panneau ñu ne ñu Wade way dévolution monarchique mais lan je am solo get the job done ok mais est-ce que bu ñu bëggee togg Nous jën tey ñu ne dañu togg ceebu jën

mais pourquoi ñu wara topato ji ñom nax ñu nax nan wa dafa bëgg jël affaire bi jox ko doomam mais sàccal milliard bu la nexé ben instant bu nekké comme Karim Wade whatever andiwuñu ay preuve et tout mais ñun duñu ay ngaaka tamit alright mais ñom ñëpp ay lu à l'unanimité lan lañ wax non Karim wad Wade kat la mais kat la quoi pour la première fois gaay gis ben pour la première fois pour la première fois ñu top ñu gis ni légui ñun ñongi ngi ubbeeku ci arab yi nous sommes ci chinois yi France un peu quoi mais parce que quand va bien am je vous ai dit encore une fois li ma leen di wax il faut ngeen di vous wu ci alcorane bi pour ngeen di comprendre moment bi une toll fiñu toll ci suñu histoire leen koy wax mais mom il était important moo il faut ñom man sama rêve lay wax ah, sama rêve lay wax sama rêve mën na am nak mënul nek réalité mën na am ñom du mësa une mais bro sama Karim Wade Tiano Al-Sansal, juge dem ok nous, Théodore Monte nous sommes là, nous sommes ñooñu laa wax ah mais ils vont travailler ensemble à l'année di quoi bu Samasago, bon ça peut être une utopie c'est clair mais bu Samasago, parce que nous nañu repentir ku connaître say erreurs, mais nga jàng ci li am li am ni ku mu affecté wul au Sénégal donc même bu nekkoon escroc nga wala nga bon mais mais Karim Karim côté ligue liggéeykat bi Thierno Alassane Sall côté jub bi juge dem on a rien à Théodore Monté on a rien à lui reprocher Macky Sall dort cinq ans yi après ñooñu continuer ñooñu continuer pour man bon li wax ni ça peut être comme li ma ah, ça fait une utopie whatever mais dama ni lo ça n'engage que moi mais li ma amal solo Macky Sall il faut mu continuer defaat 5 ans yi di ñëw quoi mom mu gérer 5 ans yi di ñëw ba carte gi leer parce que Ousmane Sonko danger bi mu àndoon li mu danger instant bi lolu moment ñu jël un yota de risque ñu jël risque instant bi xolal dëkk bi dafa téggu dañu dañu waji exploiter pétrole amna na ñoo xam amuñu ci contrat yi ok hein nañu waxante dëgg donc gars euh nañu bàyyi xel ci autour de ma Sall tey suba lan mooy discours. discours suba premier ministre amul ministre de l'économie et des finances je dis bien amul premier ministre amul ministre de l'économie et des finances ok dama ni amul premier ministre amul ministre de l'économie et des finances affaire yi gars yi def ci suuf ñun xam doole wane wu mais li ngeen di dawal ci suuf yenn yenn yenn ministères yi yenn affaires yi ngeen di bloqué parce que da ngeen di bloqué ay affaires affaires yoo xam c'est destiné au Sénégal ngeen bloqué ko ministère de l'économie et des finances xaw ma léegi mais da ngeen ko def xaw ma le nouveau mini whatever mais loolu ngeen daan def Macky Sall day jóg pour job affaire pour le peuple ngeen bloqué ko ngeen koy yéexal di ko traîner loo di planer di ko xeex ci suuf. Mimi Touré li mu wax tey dafa leer nee na am na ñoo xam ne ñoo ngi benn APR whatever ah, il parle de gros bonnet yu nekk APR après ñoom dinañ ko suivre kenn du ko suivre xam nga la may wax ji dafay anticiper parce que xam na yenn brebis galeuses liñ nar a def après bu Macky Sall dafay présenté wu ah te ñun dañu bëgg imposer mu présenté wu ñun loolu lañ koy imposer quoi Macky Sall li am fii yëpp am nga ci part de responsabilité c'est de ton devoir de ton devoir nga présenté wu nga réparé li yëpp nga dégagé lu ñëpp yu yaa yor pouvoir bi instant bu nekkee am na ñu naan waaw bu newee dafay kii qu'il y beaucoup de morts Sénégal dañoo dof dañoo dof ban mort gars yi bu ñu waxee rek ñu ne il y a des morts Sénégal tey jii bokk ñoo ñun suñu jamono de ñi boor ñëpp par accident mais mort ni dem engagé mort way ñun depuis 1900 war ga sidine sax sidine sax jonkan jonkan la bu ñu nee sidin jonkan la di di xool coy yi gars loolu moom mën rek ci seen tapet yéen da ngeen bi mooy ki nga xam ni ñun mooy ki nga xam ni ah dañ koy jàpp def ko esclave déglu bu baax de ci ADN am la nekk nga def ko esclave mais mu mu dem quoi mu dem ci benn plantation quoi de coton mais benn contre ñaari contre maître tubaab ñoo koy garder quoi mais mu toog fa xoolal du mës a jëngu ñi jëngu <laughs> mooy loolu quelque jëngu mais majorité bi duñ jëngu mais moo fi am ba tey nga defa ne ñun buñ nekkoon ñun ñeme nañu ñeme nañu li ñuy kii dina demee ni mu demee tey ah tubaab yi nañ continuer ah xoolal Palestine ñaata année ñoo ngi xeex ba tey ils ont jamais baissé les bras mais xoolal ñun on est là à courber l'échine ngeen ñoo de y aura des morts morts yi mooy ay xale rek ñooy mourir mais damani ni balaa may xam ne y aura des morts ah, ma gis benn leader dee benn leader dem ñu ne leader diw de ci combat bi la deewee ci champ de bataille bi la deewee ce jour là ah, ah <laughs> dañ waxan deug dina ni y aura des morts mais non non mais dañuy jël xalé daf leen boucler lol c'est pas des morts c'est des gens qui n'ont rien compris des bambins qui n'ont rien compris ah il faut gars arrêter des morts <laughs> ñom tant que ñom mort ñoom y y a pas de mort ya nañu baye menace bobu benn mort du fi am ñun xam nañ Sénégalais lay Diouf <laughs> nuyu na lu bax lay gars yi xam naa leen dama yag ci mouvement yag grève depuis l'année blanche 88 ñooy grève yàgg naa ñoom caka caka ak coow li yëpp gars yi <laughs> suñuy jamono loolu lañ ko daan reetaane sitin day nekk ci kanam jëngu jamono yi laa la jamono yi caka mi na caka tay ak ñoom njóogu affaire loolu la ñaan ree dafa mën a daw jëng bi mooy nekk ci kanam mais bu cay ñëwee moom mooy nekkaat ci kanam côté bële mooy ci day traversé nekkaat fële loolu dafa yàgg Sénégal kenn du dee kenn du dee ok kenn du fi dee problème bi mooy gars yi yeewul leen quoi ngeen yërëm xale yi di dee par ignorance parce que dañ leen di manipuler yërëm leen xale yooyu parce que ñoom mosu leen dégg mosu leen dégg doomu Moustapha Niasse dee na doomu Djiboka dee na ci affaire doomu Mbaye Jacques Diop dee na ah doomu euh, Macky Sall dee na doomu Ablaye Wade dee na mosu leen ko dégg te xoole ñiy dee ñëpp xam fa lañ dëkk mosu leen wax leen ma benn jour rek man lam leen laajoon wax leen benn jour ñu ne booy bale dee na quoi mais point E la dëkk point E mosu leen ko dégg ñu non ben de fait quoi mais mais Almadi la non fan résidence hein? <laughs> ah balak <laughs> ma non sincèrement wax len ma ben jour mu am ñu non ci quartier UPI la amitié sax ay si amitié hein? amul xam ñoy non boy bi tiaroy je mais quoi pauvre pourquoi ngeen continuer bëgg dee pour des gens yoo xam bu ñu faloo suba ñoom ñooy rayaat ñoom ñoo leen di continuer dee parce que ñoom bu ñu xasee ba jël pouvoir bi après ñoom ñooy yar police beeg kii ñoom ñoo rayaat ah moo tax may leen gars yi il faut ñu jàng suñu suñuy erreur passé ñu xam ni ci biir suñu njiit yi njiit yaa ah ñu leen di jiite même biir opposition bi même biir opposition dafa am yeneen fàllewu Barthélemy Dias bi mu yoree di tiire waaw exemple bu patan mu ngi fàtte ngeen xaamaan boobu nekkoon ci wet seytaan boobu nekkoon ci wet dem na ngeen xoolaat image tiiral ki ko doon pousse pour mu tiire Barthélemy dafa dem na ngeen xoolaat les images dafa am benn seytaan bu nekk ci ginnaawam moom mënoon na jëli pistolet de wala mu ne Barthélemy alma gën bi non non deful loolu de daf ko doon pousse naan tiiral Kamal si ah di ko pousse seytaan yooyu noonu seyaatin yooyu ñoom ñoo nekk autour de Ousmane Sonko nekk autour de Macky Sall nekk autour de Thierno Alassane Sall ñoo nekk fepp Ousmane Sonko ci boppam guuta gii mu dugg ba nii mais ay seytaan ñoo ko doon jox ay conseil seytaane ñoo ko doon jox ay conseil loolu kese la loolu kese la ñoo ko dugal ba mu dugg bu coolee dañ ko fay bàyyi ah Mimi Touré xoolee ko li mu doon wax démb tey bi mu coolee mais bàyyi na fa bàyyi na fa Macky Sall dem mel ni du moom démb dañoo ñàkk jom ñàkk ñu jom de c'est yàlla moo leen gidewul gis nga ku ànd ak iblis iblis xam la la ennemi bani aadama la ok ku ànd ak iblis mais da lay sa ennemi la quoi yàlla nee na mais kii seen ennemi la mais jaar leen àjjana yàlla dafa ni damay créer benn vicaire pour planète terre ok avant muy créer aadama la ko wax mais aadam alayhi et est destiné à la planète terre ok fa la jëm mais après mu jaar àjjana lan lay def àjjana alors que avant ñu koy créer yàlla dafa informer la kay ne leen kii pour la planète fi la jëm aduna fi la jëm ok mais lan lay def fële àjjana bay lekk pom ay histoire yooyu yëpp am mais c'est pour ñu ñu réaliser que Iblis suñu non la quoi Iblis bobu nak mais da lay dugal ne la gayan demal suite bu rek ken dula kep ken dula kep la kepp gayan demal demal non da nga am ki bay non garaawul demal was-was bi nga dem ba pare mu ne la au lieu mooy la arrêter non non demal nga ni gars dama def erreur mais damay démissionné mu ne non non xoolal wooteel motel combat booy la ñu nekk bouclier pour yow. mais Iblis du wax ak yow directement xam na lay def mais ñi nga nekkal la dina ci am ay chéatine yu autour de toi yoo xam ne mais ñoom ci ñoom la Iblis di jaare ci ñoom la ñoom ci ñoom lay waxee ak yow ñoom ñooy micro bi muy waxee yow nga continuer di gën a dugg après nag bu gënee xoolal nga dem nga dema ah, man gëmoon naa ni Ousmane Sonko gëm na sunna benn instant parce que ñoom la doon nekkal nga dem ba benn instant xoolal fan la ko yóbbu léegi mu mujje mu yóbbu ko ba ci léegi bois sacré xool ni mu ko jëlee ni mu ko jëlee ci islam dafa daan ñëw di resté gars muy resté amana rasul gars yi di jooy benn instant muy dawal ah parce que iman day def noonu ko muy dawal benn instant ba ci tali bi comprendre nga après bon heure julli jot bon yooyu tamit xam nga boo ko defee am bu nekkee am na ay dégâts ngay dem ay suite bëri boo ko def yàlla dafa lay weer lool moom dafa lay laal yéen Cheikh Yérim Seck ñëw di julli foofu te xam ne dafay créer attroupement mu ñëw julli foofu pare mais xool tey fu mu mujjee photo boobu ma leen tegal foto bi parce que dañ ma informé ne Ousmane Sonko fi mu nekk maire bois sacré yi ñoo fa nekk ak lan déggu leen baax li ma leen di wax ñu ne ak lan ñu ne ak seen lekket yi lenn moom ma ci amal solo pour ma vérifier si l'information parce que ki may informer tamit kooku xam nga difu dëgg quoi ok ak seen lekket yi far Ousmane Sonko génn gars gis ngeen lekket yi wala gisu leen lekket yi mu ne ma dañ doon togg di jox xale yi ñuy togg di jox xale di leen jox ndox même ndox lañ leen koy jox bu Ousmane Sonko di génn dem ndaal bi dañ ko tojal beneen ndaalu ndox bu muy génn ñu tojal ko ndaalu ndox bi donc mom mo ngi ci shirk bi tay ki togon nan seigne muntaha yeen lañ yaga am nak al akhirah mu dem fele ci euh, euh, euh, khalifa des layen mu dem man legi sax ousmane sonko lay la sante ah mu dem ahlus sunna yi ñew diko jappale ci souf parce que ci souf amul lu mu wonul tarikh yi amul lu bon lu mu len waxul tay ji xam fan la mujjé tay ji mo ngi ci wa bois sacré biko yalla ki au lieu mu mu top yalla mais lolu moy fiko iblis yobu lolu iblis a atteint ses objectifs shirk parce que moom tey ak ni mu siwee bu defee benn bàkkaar ah punition bu nekkee benn ah, moo taala càmm bu defee même bàkkaar mais attends du demee noonu yàlla dafa ne Jésus ak ak alayhi salaam moo kiyam yi table servi Jésus waxal yàlla moo ñu table servi yàlla lan la wax dañ leen ko indil mais buñ leen indilee miracle bi wala bu leen yóbboo ci yenn niveau yi wala boo leen gisee yenn affaires yi wala bu leen yóbboo ci yenn state yi après bo jalgatee da ngeen di am double punition rasulullah salaa wasallam ci bopam dañ ko ko wax ne ko bo taaxut bi la ci yob won xol di nga am double punition aduna double punition àllaaxira kan la yalla di waxal rasulullah sallallahu lay waxal mo xam ma yonte quran la wax ah waxul ak mom ñun lay waxal donc waji dafa wara démissioner dem yonam quoi parce que ñi nekk ci Macky Sall di trahir setan yooyu ah, di ko di di lak Ousmane Sonko ci souf mais <laughs> waxoon naa leen Barthélemy Dias fu mu mujjee tey ah, fu mu mujjee donc gars li lii live bi lii rek laa bëgg ngeen gën ci retenir mooy lan il se peut moo tax ñuy anticiper pour ñoom ñu arrière ñu bañ a jouer à leur jeu truc la ok ñun dañu gëm ni Macky Sall dafa war a continuer cinq ans yi di ñëw le temps ñu defaru xool ñun ñu xool parce que ñun dañoo soxla xool quoi xamatuñu kan mooy kan loolu mooy raison bi surtout raison bi gën a tax ñu ne Macky Sall dafa war a continuer ok léegi nag ci biir Macky Sall am na des brebis galeuses na fa ñoo xam ne ay Mimi Touré ok ok comme ni ko sister Nana waxee yoo xam nomination kese moo ñor am na ñeneen ñoo xam ni génnaguñu xam noo leen di xàmmee mooy jour élection amin Macky Sall bu fi waxoon bu nangoo ñu liñ ko wax liñ bëgg mu def ko mooy mu représenté wu bu nangoo mu def ko te ñoo ngi ñaan mu def ko ñoo ngi ñaan mu représenté wu bu ko defee ñi ko jege ñi ko jege ay premier ministre gars gars yi seetlu ngeen benn affaire gars yi nañu attaquante ci lépp ñi jaar domaine domaine nañ attaquante ci lépp sauf <laughs> sauf ci affaire domaine du ñu attaquante sax seen biir nu mu demee noonu Ousmane Sonko nan la def ba am kër kër kii kër Taïbu Ndiaye Ousmane Sonko yéen ñëpp xam ngeen dafa doon fenn jour bi mu toogee mu ne Taïbu billahi te ni mu ñëmé yalla mu né billahi tey bu amul sax lu mu fay avocat deux jours après tey fay 3,6 milliards plus tard la fay pour génn 3 virgule ku amul lu mu fay avocat dina génn 3,6 milliards mais tey daf leen menacer né day kalaatel lepp Ousmane Sonko yàqamti daw daw dem ci Pape Alé di défendre di défendre Taïbu comme ça ñom ñu génn pourquoi parce que mo doon attaayal Taïbu euh, cité kër fay dafay da fay fen cité kër googu Taïbu Ndiaye ci diiru Taïbu Ndiaye la ko amee

kenn enquête ñom ngi ay affaire phobie la nekkoon loolu lañ ma wax ah wóoruma ok ci dil yooyu ñoo ngi ma naan boo yeneen dil la ay en tout cas affaire yu louche mais nañ ñu wax nan la gaay amé xaliss mais pourquoi duñ ko def parce que Bougazelli day dugg prison génnaat les gens ils prennent nit ñi en otage. pourquoi parce que ñun sénégalais buñu arrêté di déglu gaay di arrêté nekk benn nopp ñoom dinañ yolanté quoi mais pourquoi le président le président de la république monsieur Ablaye Wad, wala le président de la république Macky Sall yenn ça de dañu obligé noppi. parce que yéen yéenay problème bi lu mu wax ngeen dégg ko mais bu nekkoon di ngeen ñoom bu ñu leen waxee ngeen nangu ngeen mais ñële ñoo upp làmmiñ ñoo upp làmmiñ té dañoo puissant dañoo yor xaalis vous êtes corruptible yenn say dañu jaar ci yenn sëriñ yi yenn saa dañu jaar ci yenn connexion dañ fay jaar juste fa lañu jaaré quoi joxe money. bu ñu joxee xaalis après ñooñu joxe wax leen beneen ngeen def ko ndekete yoo du dëgg ñu dem ba dix ans plus tard ñu ne ñu non Wade avait droit à un mandat ok nañu waxante dëgg gars yi ñun ñooy problème bi nañu bàyyi nekk benn nopp loolu moo tax ñuy jël kii bi en suñu président yi wala suñu kilifa diine yi wala ku mënta moo tax ñun di jël en otage nañu bàyyi nekk benn nopp encore une fois gars yi bu Macky Sall neewee par hasard euh, incha allah na nekk. mu ne dafay représenté wu képp ku ko jege ah képp ku ko jege ku ko jege laa waxee nga opposé wu ci ku nekk di liggéey ak moom tey jii nga opposé wu ci xamal ni mooy ñi nga xam ne tey jii ñoo ngi saboté ci suuf parce que man dama xam ne am na ñuy saboté ci suuf ok man maa lay wax lool képp ku ko def xam ne traître la te yow boo trahiré Macky Sall nga nekk trahir nga mais nit ku bon nga quoi koo mënta nekkal di nga ko trahir parce que doo nit ku baax ok ku trahir kële tey jii nga nekk ak Ousmane Sonko ñun nous sommes contre Ousmane nga trahir ko mais Barthélémy Dias mënuma la wóolu quoi ak foo te demee waxal loo xam man moom laa bëgg a waxal Macky Sall présenté wala li ma bëgg a dégg mais gars yow mënatuma la wóolu mënatuma la wóolu parce que da nga toog mais nekk benn gars après nga trahir ko très à très loolu may wax ji donc gars yi loolu rek man laa leen bëggoon wax mooy bàyyi leen xel tamit ah ci ñi nga xam ni. ils sont autour de Macky Sall fek ay traître lañ bàyyi leen xel ci ñooñu bàyyi leen xel ci ñi nga xamni ni ñoo ngi autour de Thierno Alsan Sall fek sen intérêt personnel kese moo leen tax jog ñom ñoy yakal gaay gars leen xel ci ñi nga xam ñoo ngi autour de Idrissa Seck wala Karim Wade bàyyi leen xel ci les brebis galeuses mooy les crocodiles affamés loolu moo tax yi maa yàggale wa affaire bi c'est crocodile affamé contre crocodile rassasié ok bàyyi leen xel ci crocodile affamé yi ok def leen attention ci ñoom ñi parce que nguur ak jonkasi yi kese moo leen tax a jóg bi taxul taxul leen jog donc ma ngi leen nuyu yéen ñëpp jërëjëf ci ci deglu bi inshallah setan